xam nga laaj bu njëkk bi julli yoor yoor mooy julli bi nga xam ne nit ki dafay julli gannaaw boo xamee ne jant bi fenk na ba yëkkati ko tuuti ba teewal nag zawaal bi jot maanaam li fekk déwlu ba jant bi jeng ñaa waxtu ci baa dugg na diggante boobu lu mu ci julli mën naa ko julli yoor yoor ay raakaam itam ci ñaari raakaam la xam ne rek juróom ñetti raakaam waaw julli naa raka kon mu nekk loolu mën naa nekk ay ngëneelam nag ngëneel yu bari la muy ngëneel yi lépp julli boo xam ne salaatu tafawwu ndax mooy julli coobarew julli naafila boo xam ne nit ki daf koy tànn euh, waxtu woo xam ne saa bu jotee mu def ko loolu ko jur ba ci jiitu mooy jëfam ci wàllu jaamu yàlla ndax ci farlu ba am ay naafile yoo xam ne warlu na ko saa waxtu wa jotee mu julli ko kooku julli farata du ko du ko raw maanaam li ko ginnaaw fonk na naafile ba saa bu jotee mu def ko kon julli ga nekk farata mu dox taxut ñuy wax kooku ci benn maanaam protection la boo xam ne dana tax mu fonk julli farata yi beneen bi ci des mooy dana ko dabal ay rëcc-rëccam yi nga xam ne doon na ko rëcc ci julli farata ñu jéggal ko ko ci sababu julli naafila yoo xam ne dana ko def loolu ay xadis ñoo ngi beneen bi ci def mooy ngëneel li ñu ko dig ëllëg muy tiyaaba joo xam ne bare bare la ndax nit ki li doonul lu war moom ba noppi mu jóg di ko def ngir yàlla kooku tiyaabaam bari na lool ndax doonul loo xam ne waajibee ci moom beneen bi mooy julli yor yor ci boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko tuddee salaatul awaabiin maanaam julli ñi nga xam ne ñooy ñii ñu dellu ci seen borom jullit ñi dellu seen borom rawatina bu demee ba nga xam ne du du waxtu wu teel mais dem na ba jant bi naaj ba ba tàng ñu julli ci waxtoo maanaam lu mel ni midi ñu julli ko ko waxtoo foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tudd ko salaatul awabin mu ne xiina xormabun fi saa waxtu bi nga xamee ne eh, misaal bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ci naaj yu tàng bi moo di gëléem yi ndaw yi fi ñuy dox ci naaj wi nee na nga gis ne bu tegee tànk bi rek day gaaw yëkkatiwaat ndax naaj wu tàng nee na waxtu woowu ka ci julli julli na salaatul awaabiin muy julli way dellu yi ci seen borom tabaraka wa taala nga xam nga ne dafa am martaba yu bare bare ci diine yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koy tagg bokk na ci martaba yooyu mooy martaba ku ci nekk awaab melal na ca Daawud mel na ca Suleymaan melal ci lenn ci yonente bi wax ne innahu awaab awaab yi yooyu nag nga xam ne ñooñu seen lépp ci seen borom tabaraka wa taala lañ ko delloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na julli ci waxtu woowu mooy julli ñi nga xam ne melo xaaral wala ñu yaay mooy dellu ci seen borom tabaraka wa taala ak jàpp ci ñun ndax ki nga xam ne nitu biddaa biddaa yi muy def nga xam ne yuñ sos ci diine mu di ko jëfe la ndax dana ci am dara dara ci xeer déedéet maanaam biddaa buñ sos ci diine mënesu caa am mënesu caa am xeer ba bàkkaar lañ ciy jëlee biddaa bàkkaar moo ciy juddoo wala ku yàlla du ci waaye ku dafa am ñaari mbir lu ñu laa defal ci diine nga def kooku la ñu séntu xiyaaba waaye boo defee te kenn ñëwul a defal rek kooku da ngaa sëtal xiyaaba mënu caa jóge bàkkaar moo ci mën a am ci li ñu dund rek boo ko ci misaaloon ci wàllu xiyaaba dana mën a leer sa bopp bu ne maire bi tey wala chef de quartier bi wala yu mel noonu dañuy jël ay ñoo xam ne ay balekat lañu ñu ne ñëw leen ñu woote ay nit dikk bind seen tur def contrat ñu leen dem leen bale ci ñu ñëw di bale bu weer day ñu ñëw xëy am benn waay boo xam dañu fekk ñu bale noonu lay dem est ce kooku danañ ko fay mu ne man bi nit bale maa ngi doon bale ñu ne ko seen ah, bale boobu yaa doon bale si ki nga xam ne dafa sëtal di jaamu yàlla noonu la mbiram demee maanaam maanaam estilewul fenn dafa sëtal rek di dem dafa ñëw fekk lu mu moomu mu nekk di ca tasarruf maanaam fekk lu yàlla moom mu mu fab ko li ñu tuddee tashriya muy xob ci aw yoon wu ñuy yàlla ak nu ñuy jaamoo yàlla loolu yàlla rek moo ko fenn ki ñëw la xob ci yoonu bopp ni nii lay jaamoo yàlla kooku feeñ na yàlla ci anam boobu loolu moo tax bi nga xam ne biddaa am na ko ci taxaw bu ñu ko waxee mooy jaamoo yàlla noo ne yeneen bi joxamu ko wala daw jaamoo yàlla noonu wala li tax mu garaaw mooy dafa làmboo tuuma di jëm ci yeneen bi sallallahu alayhi wa si kooku wala yoon bi daan musiba kii def ak jaamu yàlla boo xam ne ne jaamu yàlla bi saxaabaam waaye rek ko rafetlu di ko mooy li ñuy tuddee ñoom bi daa rafet léeg ne bi daa la waaye nag bu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yi ngeen biddaa bu rafet la na ko soo xam dara li dem ba jëmmi jamono am ci biir xeetam xeetu jaam wax ne kenn ci xeetam xam na ko te yonent bi na ko nag tuuma joo xam ne moo gën a garaaw mooy xam dara ba nekk nëbb ko te yonent sëñ ko xam dara di ko nëbb yaa ayyuha rasulu balligh maa unzila ilayk min rabbik borom bi tabaraka wa taala daf ne ko yow yonent bi jot ci lépp lépp loo xam ne wàcce naa ko ci yow kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nëbbul dara jot li na lépp kon tuumaal ko ci agrée wala nga tuumaal ko ci nëbb la ko yàlla xamal ñaar yooyu yëpp ay tuuma yu garaaw la te biddaa loolu la làmboo doon ko waaye waxu ko ci làmmiñam waaye li koy jëfe ci ay cëram ndax mi ngi jëfe loo xam ne xam ne ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam jaamoowu ko woon yàlla kon nag ko jaamoowul yàlla benn da koo xamuloon wala ko dana ko denc te kooku musiba la kon biddaa moom dafa doon loo xam ne da nga koy daw ci sa diine comme ni ngay dawee gaynde ci sa wér gi yaram noonu ñu jëlee gaynde di bar bar def a ko war a def parce que bu génnee li ñu yàq ci diine moo gi di yàq ci wér gi yaram doomu aadama waaw euh, jéggalu borom bi tabaraka wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ci ab xadis ne dañ leen astaghfirullah fi lyawmi sabina marra dana jéggalu yàlla juróom-ñaar fukki yoon ci bis am beneen boo xam ne dafa ne mi'at marra maanaam téeméeri yoon borom xam-xam yi kooku ñaari taxawaay lañ ci am am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ne téeméer bi kenn sañu ko wees ginnaaw juróom-ñaar fukk la téeméer kon ñu bañ a weesu téeméer bi yem comme yem am ñoo xam ne dañ ñu jaamu yàlla boo gisee ñu tudd ci adat ñu ab lim tuddaat beneen ub lim day wane ne kooka lim ba nekkul maqsuud li zaatihi maanaam jubluwuñ ci lim ba ci boppam ndax léeg-léeg am ay jaamu yàlla yoo xam lim gi ci ne doole lim ba jubluwuñ ko dañoo jublu rek ne lu bari juróom-ñaar fukk wala téeméer fekk lu bari nga bëgg a wax dina su fekkee loolu rek la nag kon istixfaar ci yam nit ki mën naa istixfaar téeméer yoon ñaar téeméer yoon wala bañ ko wàññi dara ci temps rek trente minutes ou quinze minutes yoo xam da koo toog di istixfaar day mën a nekk loolu nag borom xam-xam yi dañuy faral di misaal ci bare bari loo xam ne tudd na yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd na ay lim wala mu jëfe ko saxaaba dara wala ñu bañ ko bañ fekk lañ ca dégg mooy lim booba nekkul maqsuud li zaatihi maanaam jubluwuñ lim bi ci boppam waaye baril ga jublu wala am na jublu waaye buñ jublu si misaal euh, ñi nga xam na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci jël euh, xam ne dañ doon dóor nit ñi ak ay dàll ak ay ay gëj-gëj ak ay yëf yu faa yu mel noonu lañ leen doon dóor bi ñu ñëwee ba ci jamono yi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bi ñëwee ci jamono yi Abubakar Siddiq mu def nguur boobu mu def ci ñeent fukki at bi ñëwee ba ci Omar ibnu Xataab radiyallahu taala anhu mu duusoon nit ñi ne leen daal mbir mi woyof na nañ xool nan la ñuy def ba mbir mi daal yëpp ñu mën ci dellu gannaaw ñu ne nañ ko def Abdourahman ibn Awf nañ ne ko nañ ko def li gën a néew ci alxadd ñu juróom-ñett ci xiyaar nee na ñu tàmbali ci leen dóor juróom-ñett ci xiyaar kon boo gisee yarante bi sallallahu alayhi wa sallam doon na jëfandikoo yeneen i dóor ak ab lim Abu Bakar ñoo jëfandikoo beneen lim Omar ñoo jëfandikoo beneen lim ñu ne kon foofu dafay dugg ci li ñuy tuddee lim boo xam ne jubluwul ko moom ci boppam waaye luñ jàjjee nit ki ba du ci def lii loolu lañ jublu lu mel noonu nag dafa bari moo tax lu mel ne istigfaar nga xam ne nit ki dafa jublu jóge ko bàkkaaram mu baril ko loolu doodu loo xam ne lu wàññi dara ñu ne la waaye nag am ci ñoo xam ne dañoo tënku ci téeméer bi te bu fekkee dañuy xool nag dañu jàpp ne tënku ci téeméer bi mu bañ koo ëpp ci bis loolu mooy li gën a dëgër mooy li gën a dagar dalal dal xel waaye nag ñu xam ne foofu bi daa am maanaam su ëppoon téeméer bi du tax ñu tudde ko mukk bidaa ndax borom xam-xam yu mag a wax nañ lii ñuy wax lii am na nit ki nga xam ne dafa njaaloo wala yaatu billah ba doom sosoo ca ndax dana mën takk doom jooju di ñu wax ne déedéet du ko mën takk du ko mën takk ndax moom su ñëwee ne moom moo ko jur ci ci wax ne du doomam waxuñu leen juru ko waaye dañ leen juru ci yoon nit ki suñ jur nag moo xam ci yoon la ko jur wala juru ko ci leneen moo ne mënu koo tax ngëneel moo ko jur ndax nit ki mën naa jur ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la cay firnde ci loolu dafa am jamono euh, ki nga xam ne mooy zama mooy bàyyi sawda bint zama dafa am ab jaa ab jibéeram boo xam ne daf daan téye moom waaye ndekk jibéer bi dafa dem di njaaloo ak keneen kooku dem am doom doom ji ñu di ko xëccoo euh, mbokkum Saad ibn Abi Waqaas ñëw ne moom mooy bàyyi doom ji euh, doom yi Zam'a yi fa nekk ne seen bàyyi ko jur ndax seen bàyyi moom moo woon jigéen bi ci ci kërëm la nekkoon comme ay soxnaam kenn moo ko jur ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu atte leen seen diggante kër nga xam ne da doon njaaloo mu ne ko yow jàppoo ci dara demal ci nga xam ne ci këram la nekkoon di fa di fa sëy comme jabar wala comme ab judee mu ne ko al waladu lil firash maanaam doom ji juddu ki nekkoon ak ndaw si ci lal bi kooka lañ koy askane waaye walil aahir al hajar yow mi nga xam ne nag njaaloo la ci indoon yow jàppoo ci dara demal sa yoon waaye nag ànd ak loolu lépp téewul mu ne sawda bint Zama ah, mu ne ko na nga muuru na muuru ba mu lëj teewul eh, ndaw si di di doom bi juddoo dafa nuru waaye jëli nga xam ne moo nekk ci jaaloo bi ba nuru bi jéggi dayo ba ñëpp jàpp sax ne moom waaye dañ la moom waaye ànd ak loolu teewul mu digal sawda ñuuru ko ànd ak ne bàyyam lañ ko askan bàyyi sawda ci boppam lañ ko askan ne doomama ànd ak loolu teewul mu ne ko kon foofu ab atte ngi fi boo xam ne su fekkee settantal nañ ko danañ gis ne bi mën naa doon boo xam ne sharia lii la wax waaye teewul am yeneen yi tey teguwaat nag ci kaw kon kii nga xam ne xam nañ moo ko jur ba àggal waaye nag juru ko ay ahkaam mën na caa tegu ay atte atte ba kay tegu mooy moom ci boppam mënu koo takk mënu koo takk loolu comme ni ko cheikh islam ñu taymiya di waxee bi mu ko gisee ci benn masala daf ne lii wax bi ñaaw la joo xam ne war sa génn sax su làmmiñ wane ne mu ne itam xaw ma benn borom fiq boo xam ne ormal la wax na wax ju mel nii maanaam amut amut ci fiq kon ñu koy wax ay rek ñoo xam ne seen i xel la ndax naa nga mën a nga mën naa nekk yu wax sax di ko dégg <coughs> imaam bi nga xam ne dafa fàtte euh, xutba ñaareel bi maanaam bi mu xutbaa xutba bu njëkk bi ba noppi rek daa ñëw ne nañ taxawal kooku dañ ko ko waroon doon jaadu mooy ñu fàttali ko dañ ko ko waroon fàttali mu delluwaat doonte ñaari baat lay wax doonte day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax daal di wàccaat mu tudd beneen xutba ñu julli loolu moo doonoon li jaadu waaye nag na julli bi àjjuma bi baaxul on julli bi baax euh, xutba bi manqué na su ko defee lu mel noonu ñu xam ne fu mu am fu ne dañu war a fàttali imaam jëm mu dellu àggal xutba ba door a jël suñu taxaw julli euh, imaam bi sujjóot nga yeex lool dañ ko fa yeex ko fa fekk loolu itam doonut li gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf na fi ida rakaa farkaawu wa ida sajada fasjudu maanaam faago bu ñu gisee faaw taxsiib yonent bi alayhi salaatu dee mbor kooru koo leen ba sujjootee sujjootee innama joxe leen imaamu lu sama bihi imaam dañ koo indi ngir nit ñi mën koo roy kon su defee nangam defal nangam su defee nangam defal nangam su fekkee nag dafa am zikr boo doon def boo xam ne àggut parce que foofu zikr bu gudd bu yàgg nekk boo xam ne du nga tëkkee ci rukkoo moom seen allah li xam ne du nga sujjootee jóge ci sujjoot bi war a sujjootaat foofu ay zikr yu yàgg yoo xam ne day indi ab distance bu yàgg sa diggante ak imaam waru fee nekk waaye nag su la rawee woon tuuti nga àggale ñaari baat ñetti baat door a sujjoot fekk ko loola dara nekku ci waaye nag yàgg yàgg ba imaam jóge nag ca sujjóot ba nga door ñëw di sujjóot loolu boo ko defee naa dem ba àgg ci day yàq sa julli kon war sa yeer bis fan la tàmbalee ci lislaam bis boo xam ne jantam sone ci lislaam bis boobu jeex na dimanche bi ñu nekk tey saa boo xam ne jant bi sona nga xam ne ka wooroon ma ngay dox manees naa nodd waxtu ci ñu xamal ne dimanche bi moom foofu la yem su boobaa guddi gi ñu dugg moom la ñu tudd laylatul isnayni mooy guddi altine kon guddi googu ku ci ci altine bi ba kër jant bay fa na loolu mooy altine kon saa bu jant soore bis tàmbali na bis jeex na kon booy defee ne guddi gii ni jëm mooy guddi dimanche guddi dimanche la woon balaa bis bee waxtu yu jant bi fa woon démb tax bis bi nekk vingt-quatre heures bis bi ci nekk daa am guddeem am bëccëgam kon jant tey bi fu mu soo nañ xam ne dibéer ji jeex na mooy dimanche bi bis ba ca na mooy altine bi ba kere jant di sowaat noonu la bis tudd ci lislaam am na tere xale yi julli ci jàkka loolu moom doonul lu gën euh, su fekkee ne dañuy ko wala xamaguñu ormay jàkka wala yu mel noonu nañ leen orienté teg ci yoon bañ xam léeg-léeg damay gis ay njuumte ci yenn jàkka yi mooy jar xale ci seen sàppe te gannaaw loolu suñ ko defee nag fa la ñuy gën a mën a foo dëgg nag waaye suñ leen jëlee dugal leen ci diggante mag yi su ko defee gone gi bu nekkee ci diggante ñaari mag kooku moom du foofu ndax xam ne ñaar yi ñu koy contrôlé ñoo xam ne duñ ko bàyyi muy ko wala muy caaxaan kon jiin leen a dugal ci jàkka yi ñemeloo leen ko yar leen itam jàngal leen ormay jàkka yi itam ñu teel koo ormal ci seenu ndaw loolu ci biir éducation bi ci la bokk maanaam yar yar loolu ci danañ ragal jàkka danañ ragal waa jàkka mën nañu wol basi suuf dem ba tàmbali doon ay mag bu fee nañ ragaloon jàkka bi noonu lañ koy ragal ndax dañuy defee fii moom bërëb la xam ne paa yi rek ñoo koy daje te ay yoonu gone nekk te bu ñu xoolee ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk ci jullit yi seen i ndaw bañ doon ay liir dañuy tàmbali di leen yóbbu ci seen bërëbu jaamukaay di leen leel te yooyu leen di leelal di leen defal yoo xam ne bu màggee loola lañu ci lañ leen di toxti loolu l'islam yëpp yonente bi sallallahu daana julli jiite moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam yor sëtam bi ñu doon umaama muy doomi Zeynab di def bu taxawee bokk ko di jàng buy rokkoo teg ko ci di rokkoo bu noppee ba sujjóot baagal bi jëm ci taxaw gàdduwaat kon kooku xam nga ne tërewul gone dugg ci jàkka benn bis sujjóot la sujjóot bu yàgga yàgga yàgg bi mu siggee bi ñu ko laajee mu ne damaa sëgg Xasan ak war ci sama gannaaw te bëggumaa jóg ñuy daaxu loolu moo waral sujjóot kon lu mel noonu ci biir jàkka yi nañ ko seetaat baax a baax yi ma orienté gone yi waaye ñu ñeneen loon jàngal leen ni ñu nekk ci jàkka mel noonu depuis biñ nekk xale yu ndaw loolu moo gën di leen ko tere ndax mënees naa def yi def ci ngénte yépp ci bis bi xale bi juddoo déedéet loolu du dëppoo ak ndax li nga xam ne mooy rey bi jàkk bi ñu koy reyal wala jàkk yi ñu koy reyal su fekkee ñaar la ak wat bi ñu koy wat loolu bisu juróom-ñaareel bi moo ko moom al ñaareelu bis moo moom loolu yeneen yi def nag mu wutal aw tur loolu moom bu juddooma def na ko ndax ñu bari dañoo defe ni ngénte mooy tudd léeg-léeg sax tudd lañ koy tudd ñu ne damaa demoon ci tudd bu sàngam waaye fekk ne ngénte ak tudd bokkut ngénte moom mooy rey gàtt bi mooy wax gone waaye li nga xam ne nag mooy ngénte mooy mooy euh, boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xëy julli fajar ba noppi mu ne leen ah bii day eh, eh, Maria am na doom tudde naa ko Ibrahim te fekk ci guddi gi la am doom kon mu koy tudd ko bu ko neexee tur mu yeexee ko ba ci juróom-ñaareelu fan bi mu door ko déclaré kon tur bu la neexee mën nga ko déclaré ci bis bu jëkk bi donte loolu mii ñu ko fii nag parce que jékki-jékki nag xale bi ko tudd na tey waaye tudd naa ko dosangam loolu moom ñu bari nii ñu taan rek ne nag sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko su la neexee nga xaar ba ci juróom-ñaareelu fan bi comme ni ko nit ñi defee fii itam nga door koo door a déclaré tur yi ñu wutal ji tur yi sax moom lu gën a bari moom nit ci léeg-léeg bu ñu daataan bind gudd sax boo tur wutal na ko tur wala waaye waxagu ko kenn waaye déclaration bi bu ko neexee mu jekk ba ci juróom-ñaareelu fan bi mu déclaré ko bu ko neexee bés bi mu guddoo mu déclaré waaye la ñuy tuddee ngénte ne nga xam ne mooy rey koo rey rey gàtt beeg wat xale bi kooku ci juróom-ñaareelu fan bi donc lañ ko mën a defee su fekkee am na ko su fekkee amu ko nag sopp nañ bu ci yeneen juróom-ñaari fan mu mu dab dabaatal ko su amaatul yeneen juróom-ñaar teguwaatee ñu mu mu dab dabaatal ko su fekkee lott lott na ko nag mu bàyyi bañ ko def su boobaa du doon loo xam ne luy wàññi dara wallahu aalam ki nga xam ne dafa am assurance boo xam ne pour retraite loolu lu ñu mooy day jël cotisation di jox xaa buñ koy fay salaire am na lu ñuy jël bàyyi euh, pour su retraité ñu di ko jox loolu loola nag ñu denc ko ay intérêt tamit ndax intérêt yooyu da koy jël wala day jël la moom rek dem <coughs> li ñuy wax foofu mooy li ñuy wax rek ci intérêt bancaire bi nga xam ne nit ki dafa denc ci banque bi ñu tegal ko ci intérêt loolu sañu koo lekk maanaam intérêt boobu sañu koo lekk ndax moomu riba la waaye nag du ko fa wacc moo xam assurance bi la moo xam banque bi la bu mu ko fa wacc ndax su ko waccee ma ngi koy dimbalee ñeneen ñoo xam ne yeyoowuñu kon da koy jël dugal ko ci loo xam ne intérêt public la lu ñëpp di jëriñoo mu def ko ci moo xam ci hôpital la koy def wala ci jàkka bi ñu fayee ko courant ba wala ndox ma wala yu mel noonu loo xam ne nit ñi jariñoo te wat su koo defee loo xam ne moo koy jariñoo moom ci boppam donte honneur la koy jariñu sax nag maanaam am na nit koo xam ne baaxoo woon mu ne am lomu ko jox mu ne xaaral ma jox ko ko su ko ko joxee kooku day jàpp ne moo ko may daal kon su boobaa moom moo ca jariñu waaye na ko na ko dugal ci moom maanaam lislaam li mu ko sant foofu mooy alal jooju su ko jëlee na ca taxallus ndax la joo xam ne bi kenn te bépp alal joo xam ne dem na ba nekk ci benn situation boo xam ne kenn moomatu ko almaalu maalullah yàlla moom moom alal jooju boobaa dañ koy delloo suñu borom tabaraka wa taala mu feer ña ko yeyoo mu jox leen ko waaye du yow sax yaa leen koy jox moo tax soo ko mënee joxe association boo ne day liggéey ci wàllu zakat wala muy liggéey ci wàllu humanitaire dimbali doomu aadama yi jàppale leen yu mel noonu nga ñëw dugal ko foofa su boobaa loolu su boppam day doon loo xam ne yow génn nga te ba la la lew Euh, am na bakkan nag dana mën a fay ay borom assuré bakkan borom xam-xam yi ci ëpp ci ci ñooñ fay yi ak lu bari ci conseil scientifique yi nga xam ne ñooy majaamaa fiqh yi dañoo gis ne loolu ci ci ci boppam ñoo ne damay assuré sama bakkan ah waaw dëgg waaw su ko defee bu boobaa ci boppam sa gumb nga ne moom ngay assuré ñu ne loolu ci boppam dagal su fekkee daganul nag kon yéegee tamit yeneen atte su boobaa yooyu du dagan waaye su fekkoon ne nag ñeneen ñi xam ne ñu néew lañ ci ñoom te wax ne lu mën a nekk la ba mu nekk itam xam ne da ngaa jël sa alal ne bu ñu si faatoo dañ ko koy xëy wala yu mel noonu parce que mu ne ndax loolu mën naa toog place ay borom xam kay su fekkee bàyyi na benn alal bu mu mën a doon rek lañ euh, koy toftalee xam nañ ko mooy ay borom lañ jëkk a fay gannaaw boo xam ne waajal nañ ko ba noppi ndax yañ koy waajale ci alalam moo ci gën a yey mooy kàngaay yaa yéen àndal ak bàmmeel ba bu fekkee dañ gas ba bu fekkee dañ koy fayet yooyu alalam la war a génn su ci génnee ba noppi nag bala ñoo séddale miraasam ay borom dañ ko war a ba noppi su ko defee su yéree ne loola moo ko moom ay borom dañ ko koy fay li gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi mooy euh, assuré ak dund moom doonut loo xam ne lu dagal la ci chariatul islam del ci yonent yàlla isa alayhi salaam kooku li li jullit bii gëm la li muy gëmaale ndax xabaaru ku ay xabaaram dul dañ la mu di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ca war rek mooy gëm ko ci jullit bi nekk war na gëm ne Isa alayhi salaam dana delsi ci mujj jamono dana fi daje ci ñuy wax al mahdi ñu mahdi ñu ahlu sunna gëm ñoom ñaar ñooy àndandoo rey ci ñuy wax al masih ad dajjal buñ dikkee al mahdi muy jiite julli Isa alayhi salaam julli ci gannaawam détails yooyu yëpp yonente bi alayhi wa sallam ko jox ci xadis yoo xam yu wér a wér am naa rek position ban lañu am ci média yi ci seen taxawaay ci lislaam euh, ne euh, média li ci jàll li ci gën a bari ay nit ñoo ñëw rek di ko ci jàllale na ak média boo xam ne dafa taxaw boo xam ne dafay orientation boo xam ne nangam laa bëgg a waaye yeneen i nit ñoo yor seen programme ñoom ñoo di ko jàllale ci biir média boobu su fekkoon ne ñi am nañ ak ñëw aku placé aku jaral ak leneen yoo xam ne jaral na leen ñoom itam programme ñu fas yéene ñëw di ko ci jàllale ba ba ñu yoon a am seen média bopp jàpp naa ne su boobaa ñoom itam seen programme dana mën a jàll moo tax euh, média yi wërsëgam loo xam ne lu ñuy lu ñuy seexlu la euh, loo xam ne dañ naan baaxut nañ ko bàyyi noonu ku ci am moyen man caa jàllale dara loo xam ne luy def yiw loola jàpp naa ne jàllale ko te day doon loo xam ne lu jaadu la wallahu taala alam amma euh, li ñu tuddee euh, plan planning muy am nguur nit ci soreele mën naa dagan ci lislaam waaye day fekk ñu ko lan moo tax mu di ko def su fekkee docteur bu wóor bu wóor nag laa sax ay docteur ndax loolu li ci gën mooy laaj kii laajaat keneen laajaat keneen dem nañ ba gis ne ndaw si ci boppam ëmb yu jege mën na koo lor ci wér-gu-yaramam mën naa lor doomam su boobaa xaj naa nàmpal ñaari at yu alxuraan wax jëfandikoo moyen ba biir ñaari at yi du fi ñu borom bi tabaraka wa taala wax ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa yaay yi nañuy nàmpal wala sañ nañoo nàmpal wala mën nañoo nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk mu ne loola nag mooy ku bëgg a matal ku bëgg a matal nàmp gu mat maanaam kon nàmp gu mat mooy du lees bu ñaari at kon kooka su fekkee ne lor da koy dal ci wér gu yaramam wala muy dar doomam joo xam ne jëmm la lor bu wóor su boobaa euh, sañ la ko soree leen noonu su fekkoon dem na ba ëpp loolu yëpp nag nga ñaari at avancé wu dafa war a ëpp loolu dafa war a toog ñeenti at noppalu te fekk wóor na ne ñi ko wax ci xam-xam lañ wax ci xam-xam rek su boobaa sax ñeenti at yooyu mën na ko toog kon xam ne dafay dellu ci wér yaramu kii dund ak wér yaramu doomam bu foofu rek nag lay mën a dagal lu bare bare li nit ñi jàpp ne doom yi suñ baree duma leen mënal lii wala duma leen mënal laa lislaam moom xoolewut moom lislaam xoolewut xoolewut ne nit ñi doom yi suñ baree doo leen mën a yor doo leen mën a yar wala doo am dundal ndax nit ki dafa gëm ne wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ku judd ku ne sa wërsëg moo ko gàdd maanaam yow sa bopp jàpp ne sa njàmbaar moo tax nga am sa wërsëg yow te ngay dundali tam noonu noonu la yàlla gàddoo yow day jaareel dara seen loxo ñu dem ci ñoom noonu la leen di joxe ñoom itam seen da di nag luñ la xam te mooy comme suuf yi nga nekk ci biir waaw ku loolu des ci dox leen ngeen dem liggéeyi te góorgóorlu te am jom yàlla dana leen jox seen kon loolu mooy li jaatu waaye xalaatu ne suñ bi suñ bare duutuma leen mën a dundal wala duutuma leen mën a yar loolu moom la da ngay gis ndaw soo xam ne da lay wax ne man xale yi suñ xasee nit juróomi gone loolu duutuma leen mën a yar duutuma leen nangam nangam te moom ci boppam mi ngi liggéey ci ab jardin boo xam ne yoo xam ne moo leen di boo xam ne mënta maanaam na nga leen mën a yare ci jardin ma doon nga leen mën a yare ci sëriñ kon mën a yar moom du du yow yenn ñi dañoo xalaat ne nit ñi suñu laree duutuñu am luñ dund dañuy xiif dañuy xiif ba duutuñu mën a am luñ dunde kon nañ wàññi population yi loolu ay caaxaan la moom itam am jom luñ gën a nangoo liggéey luñ gën a bari su boobaa xéewal li gën a am xoolal ku mel ni Chine tey xiif am na foofu lu ko war a jël yëpp dañoo am jom di liggéey maanaam góor jigéen mag ak ndaw dañuy liggéey kuy kii waaye su fekkee suñ delloo population bu ñu xëyee dañuy toog ci garab bi attaay ñeneen ñi ci def toog waxtaan ñeneen ñi ci def benn nafa góor ñi yor seen i lépp seen jaar yu nopp mel ne ay jigéen su boobaa la leen dal a ko teg seen bopp waaye bu caagi ni